ndax kenn. si wax ko mu génn tuuti. liggéey bi mu doon liggéey ñu ne ko yàlla yàlla xale la mais liggéeyam am nañ man maa ko jàngal ci maa ko jàngal photo maa ko nga xam moom mooy yarum 30 ans la dund xale bu ndaw dund 30 am am maanaam am li mu am nii man ma am foofu man xam naa ne gëm naa ne man su ma deewoon tey benn journaliste parce que man kenn xaw ma damay liggéey dans mon coin ça fait vingt maa ngi ci montage boobu gisuma génn tali kenn gisuma génn te chaque jour maa ngi gis ne nii kon moom bu ma ko formé yàlla dama interview dafa am rigueur bëgg liggéey bëgg liggéey boobu ak gëm gis ko wóolu ko tax ko ci wax ñu boole ci nekk duñu ba waajot na kii bi kii mën na xam nga nit bu demee bay liggéey ñetti liggéey programme caméraman monteur infographe yëpp gis kon xam nga Ibrahima am na quatre métiers quatre métiers bu amul fulla amoo fay amoo fas surtout jamono yàlla nag moo jeexal mission moom def na mission kon ñu ngi toog a jasi ñu ñaanal ko yàlla yàlla na ko yàlla xare àjjana te àtte ko ci waaw bi ñu bi ñu jëlee suuf yàlla neuf jours yàlla xam nga yàlla suñu bopp maa ngi tracé si dund da ngay ñëw da ngay gàtt da am feebar da ngay am jabar dundee bi dund trente ans deux mois takk jabar bu takk jabar neuf mois lay amal jabar maanaam neuf jours lay amal jabar man yàlla ma dégg loolu yàlla la ñu yàlla ñu fii fii laa koy tracé wu ko mais nit boo ko amee dafa toog bu sàcc xel vraiment mosul wax ko jàmm am nañu yaakaar gëm nañu éducation bi def ci moom kon moom bu demee bay takk jabar war na am sa bopp sa jabar takk bu dee yow da nekk bu ku dëgg nekk ku mën a muñ mais jabar joxe war li ma dégg ci soxnaam xam nga xam ne bu baax la waaye man maa ngi taxaw di ma interprété ne man ma xam ne li may dégg def naa ci sama njaboot def ci Ibrahima def ci sama njaboot def ci sama yaram moom defagul dara moom mi ngi doog am jabar amagul doom yorul dara amagul benn responsabilité bu ñu ni kii lii la réaliser ci àdduna man def naa ko te moom def ko mooy su ma sañoon man man ma dem man te man wóorul bu ma demoon man dina ñëw def lu li man li ma def parce que man je suis un photographe caméraman monteur te moom day def infographiste kon lu mu bon bot ko ne moom benn point ak ñu am jël loolu mu naqari la waaye nag yàlla moo ko dogal yàlla rek moo dogal nii kon dañuy sant yàlla yàlla ko fi indi jox ko mission bu liggéey bu mission bi jeex mu dem yàlla ko yàlla xare àjjana te gis nga ni ko taxawoo nii bokkam yaa ngi fi wax partenaire ñu lépp lu wax lépp biir accident bi amee démb ba fii nii ba ñu ñëw Dakar waa documents yi ñu war a lijjanti te dañ ñooro à Dakar lijjanti nañ ko jël corps bi yaar monsieur Djibi Gueye Ndiaye ak ñi mu àndal a a leen tey dem nañ lépp lu waroon a am ko def woon dama ko ko def te seen waru dañ parce kon ñu ngi gërëm yàlla moo dogal rek dañuy nangul lii ci dégg mooy oto bu doon daw ñaari télé bu toj jamra la même chose oto bi moo taw fële bi toj xam nga yàlla bu ñu nekk nii dafa koy jaar mën nga nekk chauffeur plein fële oto bi toj nga manque de contrôle bi daal loolu yàlla moo naan yow chauffeur plein yow oto day daam même bu dee yàlla ko sant sa bopp yàlla moo ne oto bi day daam loolu lañ jël oto bi fële ba toj daam nit sax soxna si reer na ba suur toog ci photo yëm seetaan télé yàlla jël gis nga malaakal ma bu ñëw ba la fekk ci duus ngay da ngay jëkk xaw ñu naan bi la daanu dee wu ci bi ay fanama jeex ci biir bi bu dee oto tamit noonu ay fanama jeex rek mais lépp ñu gëm yàlla ñu gërëm ñëpp yàlla moo ko dogal yàlla moo ko dogal ñun ñu président Ousmane Sow mais mooy Jibi Gueye di wàllu wàllu yore wàllu communication yore Pastef Dakar nit ñi ngi jokkoo soxla wuñ sax wax pour sax soxla que am na ñoo xam ne jege nañ ñu ngi wax ak ñun te lépp lu ñu bëgg ñoom ñu ngi koy defal taxawuñ taxaw nañu ci lépp ma soxla woon léegi ni ma ko doon defal ko ko daa soxla dañ la ma ko woon parce que ma wax suñu diggante si daal dañ